l'actualité on continue gars actualité bi dañuy def un peu le point wax ci ki nga donc Habib Beye résultat yi mi def ci Red Star ak bëgg-bëggam yor équipe nationale du Sénégal wax aussi ci ki nga donc Nampalis Mendy mi nga xamné euh, tay aussi amna app lo xamné xam ne dina ko arrangé ci carrière am mais aussi li nga xamné donc ki di ministre des sports aussi Augustin Senghor ñom demoon nañ ci Algérie pour daal di soutenir également suñu gaynde yi nga xamné tay ji ñom lañu wara jouer donc ci ngoon si seen diggante ak ñi nga xam ne moy les éléphants de la Côte d'Ivoire les poulains donc de euh, Pape Thiaw gars yi mooy Shakira dafa woy bi mu ne kii nga xam ne mooy donc euh, Piqué yow da nga ma bàyyi man ma nekkoon euh, Rolex nga dem jëndi Casio daf ko wax rek après <laughs> tamit Piqué dem signé partenariat ak Casio donc gars yi daal fi mu ne moom Piqué moom ak Shakira beneen affaire la quoi pendant ce temps aussi ki nga xam ne mooy RMC nee moom léegi mu annoncé ne day jël retraite internationale am moom it gannaaw bi nga xamee ne Hugo Lloris aussi wax na ni mel kii di Mandanda aussi nekk benn gardien boo xam ne un gardien emblématique de Marseille mais aussi de l'équipe de France Costas Mitroglou Costas hein. Kostas Mitroglou xam ngeen ko jaar de Marseille Il a de 34 ans annoncé nañ fay arrêté carrière am ki nga xam moy Mitroglou nga xam ne ba muy ñëw donc ci Marseille ñu bëri dañoo amoon espoir ci moom mais bu mu ñëwee ba léegi ba jugee fa sax wane wu foon dara euh, lii de super coupe coupe d' Espagne diggante ñii di waa Barça ak waa Real de Madrid ah classico baa ngi nii ah classico boo xam ne Xavi moom nee na jël victoire bii nii am ko dina nekk lu rëy te dina changer li nga xam ne mooy suñu euh, saison et pendant ce temps aussi ki nga xam ne mooy Rodrigo moom dafa posté photo bi mu ne euh, daje naag sama idole bi gën a mag a mag mag donc Rodrigo bi nga xam ne sax ci image vidéo ñu ngi koy wane muy wane loxoom naan sama loxo yaa ngi lox Comme ma jàkkaarloog comme idole Cristiano Ronaldo et du côté de l'Atlético de Madrid qui dit Carrasco Yannick Carrasco ou Atlético de Madrid bëgg Memphis Depay mais Barça def avons que Carrasco nous avons que ba que ci suuf que que Carrasco euh, de Madrid

au monde actuellement tu vois le football ci en championnat et tout Messi De Bruyne et qui di euh, Neymar nous sommes dans le final rek bo ci bolé Angel Di Maria mom gars yi ah, mom ñu ak aussi un certain Luka Modric qui nak également du Spalletti nee mom ah, ñom ñaar ñi ah ñaari entraîneur Napoli ak ki nga aussi moy entraîneur bu Juve dañoo xawa am problème ah, Spalletti nee mom du moment en am problème qui euh, di Allegri mo am problème ak mom mais en tout cas dal gars demb mom Napoli dañoo fajj ñi nga xamné moy donc wa Juventus de Turin qui nak di Amrabat Rabat nañ dafa am accord ah, de principe ak ki nga xam ne mooy donc waa Atletico de Madrid ña Atlético nag mi ngi waxtaan ak Fiorentina donc Amrabat boo leen ko gisee ci Atletico de Madrid bu mu leen bett parce que am na dégo bu am ak moom la ñu wax kii nag di euh, Azzedine Ounahi Leeds aussi dugg na ci li nga xam ne nag mooy donc ci euh, concurrence bi Napoli mi ngi ci mais aussi ñi ngi ciy tudd di Paris Saint-Germain ah. ci joueur marocain yi nga xam ne ñoom ñoo a convoité kii nag di Zlatan Ibrahimovic malheureusement nag blessure bi ni mu yaakaaroon noonu lay wéree wéreegul noonu moom nag mi ngi def le tout pour daal di euh, wér parce mais day dem ca Arabie Saoudite ah, pour fekkee li nga xam final bi waram diggante Milan Milan Inter de Milan qui de Modric nak ñi di wa Arsenal def nañ proposition bi muju mu jëm ci millions ak 25 millions yo xam dañ ko pour dal recruter la pépite donc Modric euh, actuellement dans fi ni clubum euh, club et ak euh, ñom dal ñoo ci parce que accord de principe sax Arsenal qui nak également di Kulisevski momita hein, Gaï déjoué qui joué ci jongante yi di ñew ak Tottenham ndax wér maintenant est-ce qu'Antonio compte Conte da koy dès à présent ou pas mais en tout cas wér na et que loolu nekk na bonne nouvelle pour Antonio Conte du côté des Blues de Chelsea kii nag di donc hein, donc Pulisic aussi Hakim Ziyech ak Kai Havertz waa Chelsea ñoom daal nee nañ fi ne nii dañ dañ si bëgg a jaay euh, ñoom ñett wala ñaar sax minimum parce que dañoo bëgg soxla xaalis donc te équipement également également plutôt dañoo bëgg tamit renforcer li nga xam ne mooy seen attaque programme baa ngi nii jamono ji wax nii donc Manchester City mi ngi joué ak Manchester United Brighton ak Liverpool après Everton Southampton Nottingham Forest Leeds Leicester bi nga xam ne Nampalys de Wolverhampton West Ham Brentford Bournemouth wax naa leen ko Nampalis Mendy il sera titulaire aujourd'hui donc annoncé nañ ko ci onze de départ bu Leicester moom ak Jamie Vardy Jamie Vardy l'attaquant emblématique de Leicester donc Nampalis moom tey dina am euh, temps de euh, jeu et je pense que c'est une bonne chose pour lui maintenant nag mën a dem ci beneen club gën fa am temps de jeu moo gën a baax kii di euh, donc Papis Demba Cissé moom nag seen jongante bi ñu am ñoom ak euh, Bordeaux euh, démb dafa def passe décisive donc Papis Demba Cissé moom ak Mame Birame Diouf daal bokk nañ ci actuellement ci joueurs yoo xam ne moom seen hygiène de vie moo leen permettre ñu jouer au top niveau abi bey ak ñi nga xam ne mooy Red Star jamono ji ñoom ñooy deuxième gannaaw bi ñu dóoree château 3 bi à 0 kii nga xam ne nag mooy donc Cheikh Ndoye dugal na mais Habib bey ak équipe am c'est exceptionnel gars yi 10 clean sheet en 17 matchs 10 clean sheet en 17 matchs 18 la huit match consécutifs yoo xam ne aussi perte ñu loolu daal actuellement la Abibé Beye nekk def ci Red Star Abibé nga xam ne ay jamono ñu ko doon tudd ne dafa war a dem euh, nekk entraîneur Brest ñu ngi ko tudd également ci Ligue 2 mais moom aussi Abibé, dafa yàgg wax ne moom son rêve c'est d'entraîner un jour l'équipe nationale du Sénégal moom nee na il pense à ça hein. donc mi ngi ci xalaat euh, entraîner équipe nationale du Sénégal servir dëkkam comme ni ko dëkkam may mu am tey aura bii nii et tout mais moom nag ah nee na bëgguta en quelque sorte hein, di ci wax tànk kii di Aliou Cissé mi ngi à la tête de l'équipe nationale du Sénégal mais Abibé Beye jàppale ne moom bëgg bëggam mooy yor équipe nationale du Sénégal tout comme un certain Omar tout, mais en tout cas en attendant abibé mi ngi def liggéey bu am solo du côté donc de Red Star fi mu ne ni ñooy deuxième wax naa leen ko donc 10 matchs yoo xam ne ay clean sheet sur 17 ba pare 8 matchs consécutifs amoo défaite nga jógee quatrième ñëw ba deuxième donc actuellement il est un prétendant sérieux pour le futur de l'équipe nationale du Sénégal après Aliou c'est bien sûr en tout cas gars yi wooy leen di like wooy leen di abonné on avance ensemble dans la magie de eSport TV gars yi toujours un plaisir de vous servir jaa ngeen jëf